sentiment bi di moom xanaa mooy rek euh, di gën di am yaakaar rek ndaxte euh, li tax ñu defar barab bi ak biñ koy tàmbali mësuñu am sikk sàkk te ñàkk am sikk sàkk boobu firiwul ne dañoo xamoon lu ñëwagul waaye dañoo jàpp ne rek lépp loo xam ne yaa ngi koy def te xooloo ci sa bopp xooloo ci sa sa yi nga xam ne eh, doomu aadama rek la te loolu tamit du du nekkul loo xam ne lu ñu lu lu war a rëy ci ñun la ndax dafa mel ne ci loolu lañ cosaanoo ndax bu ñu xoolee si du Bamba ak fi mu jaar bu fekkoonte ne lépp lu ko taxoon a jóg dafa yem ci boppam kon du sori. ñu gis na kon nag nit ki lépp lu muy def rek te jàpp ne euh, boppam taxul te jàpp ne diinee ko lal diinee ko lal ak lu jariñ doomu aadama rek da caa war a nekk ba lu ko ci fekk fekk ci loolu nag kon buñ gisee lu mel ni tey dañuy jàpp ne rafet njorti nag xëy na loolu yàlla moo ci moo moo moo moo moo ñu teg ci yoon woo xam ne mën naa am ñu rafet ne euh, lii ci la bokk. waaw xam nga ñun suñu yàlla xam na ne mosuma xalaat ne sax état dana ci joxe dara. ndax ñun dañoo doxoon ba egg ci université bi ñoo dañoo tàmbali woon ñoo ko waxee élémentaire ak ak moyen ak seconde pendant lu mat 40 ans wala loolu mboolem mille élèves yi ci nekk amu ci benn dërëm buy jógee ci ñoom di ñëw ci ñun kon la ci ku ca am loo xam ne lañ cay sart ci euh, jàngalekat ba wala élève ba mooy loo xam ne dina ko fay kiy jàngale fii tamit bi ñu créé université bi dañoo dem ba egg ci dañu mën woon ñàkk université ci enseignement supérieur parce que dañ cee toll woon. ndax def nañ lu yàgg di am sunu comme ni ñu ko waxee fii ci jotaay bi di am ay ay diplôme yoo xam ne daanaka du nekk aw këyit rek lay doon xale bi bëgg a jëm enseignement supérieur tamit bu génnee bu demee day sonn. loolu moo taxoon ñu créé ko bi ñu koy créé itam mosuñu xalaat ne lu état di joxe wala ñaar dam kon loolee moo nekk ci ñun ba léegi mosuñu toog di xaar lu état di jox ba léegi tamit ci loolu la ñu nekk. dëgg la doon nañ daan xawoon na doon nañ xalaat sax ne danañ fexe ba ñu fexe ñi nga xam ne dañ ci nekk di sox joxe dara pour ñu mën ci ma ma complété waaye loolu lépp daal yàlla suturaat nañu ba dañoo carrière man man dama wut ay ay jumtuwaay yoo xam ne euh, moom laa jàpp ne la ciy jóge dana mën a may ñu bañ a am jafe-jafe wala buñ ko dee amit yàlla dajale nañu nag ak yi tamit ay ay ay ay ay ay liggéeykat ay jàngalekat ay yoo xam ne yi tamit dafa mel na xaalis yitteelu leen waaw parce que jàngale dëgg jàngalekat dëgg-dëgg euh, dañuy jàpp ne rek xaalis taxu koo jóg ndax jàngale métti na métti goo xam ne képp ku ci alal tax a jóg rek da nga xaw jafe moo tax ñu itam yàlla dimbali ñu ci loolu bi nga xamee ne alal taxul woon ñu di ko doon ñi ci ñi ci nekkal tamit alal indiwu leen fi kon dafa mel na ñun boobu looloo tax amuñu bor jafe-jafe ci état état nag xëy na nag am di am ay ay ay étudiants yuñ fiy indi te am luñ leen warloo ah loolu di am ay ay ay teq-teq loolu moom xëy na jafe-jafe waaye naa ñun daal loolu du sumu jafe-jafe ndax xaaruñu ko woon waaw taxuñoo jóg daal.